أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وخديم أمتي أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu bàyyi leen ak sëriñ Mouhamadul Muntaxa moom Cheikh Mouhamadul Basir mu digtal leen ay kaddu yu bàyyi ko sëriñ Mouhamadul Amin bismillah
asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu noonu ko gannaaw nuyóob sëñ xaadi jaxate moom liñ ci dolli rek moo di ñu ngi nuyu mbokki jullit yëpp mbokki taalibe yëpp mbokki réew mi yëpp di leen jottali digal loo xam ne ak yitte ju rëy joo xam ne ñu ngi jóge woon ci Sëriñ Saaleh bi mu wàccee liggéey Cheikh Mouhamadou Lamine mi fi nekk fa jëlaat yitte jooju ak ndigal loole yeesaral na ko jëme ko ci mboolem ñi nga xam ne alxuraan mooy seen liggéey ci gannaaw nag ñi ngi ci ci ñiital ñi nga xam ne di fi Cheikh Saaleh nekk itam ñoom ñoo ko daa ñoom ñoom ñoom la daa jaareel ndigal li ci ñoom ñu dégg ñu daa ko taxaw di ko toppatoo bañ daa ko defee nam ware loola nag Cheikh Mouhamed Lamine yeesal ndigal loola kon nag ñu ngi leen di jottali ndigal li di leen xamal ne Cheikh Mouhamed Lamine yeesal na ko peq ci ci ci ci ci ñu jaarale ko ci ñi nga xam ne nag moo doon ñi nga xam ne ñoo ko daal taxaw naka jëkk di fi Cheikh Saliou nekkee muy Serigne Bachirou mu Cheikh Mahamadou Fadil muy Serigne Bachirou mu Cheikh mu Cheikh Habib Serigne Khady Yaxte ñoom ak ñi daa ñi nga àndal di ko di ko toppatoo di ko taxaw ci ndigal li mi ngi jaar ci ñoom ñu déen fas yéene leen ko jottali bañ àggale ko fa mu daa àgg ba lu ci mën a dolli ko sax loolu itam ba tey ñu ngi ñu ngi ñu ngi ñu ngi koy ittewoo di ko aajowoo di ko soññi kon nañ ñëpp yëg ne ittey Cheikh Saliou jooju nga xam ne Cheikh Mouhamadou Lamine mi ngi koy mi ngi koy yeesal peq na mu ko ittewoo na ko sëñ Cheikh Saliou ittewoo woon rek na mu ko digle woon rek loolu la ko noonu la ko ittewoo noonu la ko digle kon nag na ko ñëpp yëg xam ne liggéey la bu rëy boo xam ne liggéey moo ci jiitu liggéey bi rëy na lool yaatu na lool waaye moo ci jiitu ndax alxuraan moom moo jiitu lépp kon nag na ko ñëpp xame noonu te te ñëpp ñëpp itam lu ca waay man ci ci ci taxaw ga ba mu ba mu ba mu ba na na waree na na war a demee lépp mu demee ni lu lu ko koo xam ne ne dé dégg nga ak ak dégg nga ndigal li rek ak noo ca mën a taxawee rek ñu ngi koy sàkku ci yow ndax sa njëriñ rek la njëriñal njëriñal jullit yëpp la njëriñal taalibe yëpp la njëriñal réew mi yëpp la waaw gox bu ñoom nag am xam am na nu ñu ko doxale ndax gox bu ne rek am na ñoo xam ne foofa la ñoo xam fa la ñuy daje di fa jàngal xoraan bis mooy mooy loolu te nag mooy altine jiit ñëw ci dajeeg tolloog juróom-ñaari fan ci weeru tamxarit bi ndax noonu la ko da bokk na ci na ko Cheikh Saliou daa defee bu tamxarit bi da teroo bala ñëw ba àgg ci bis bu mag bi ñu ñu ñu def bis boobu noonu defe naa moom la noonu la ko daa defee waaye googu wàll rawat na ci kon nag jërë ngeen jëf li ci des moom suñu xaat yi moom dana daañ ko àggale daañ leen gën a leeral ni ni mu tëddi ak ni mu ban ni mu demee ak li tax ñu di ko def jërë ngeen jëf
sëriñ Mouhamadul Muntaxa waxee rek jële ko ci Cheikh Mouhamadul Lamine yal na leen suñ borom bokk yàggal yàggal njaboot gi ci seen gannaaw noonu rek la muy altine jii di ñëw di juróom-ñaari fan ci weeru muharram mu digle njàngum alquran moo xam ne dañ ciy jiital tuub gu sell jéggul suñu borom jàng alquran ñaanal ñaan jàmm ci réew mi ñaanal kilifay diine yi ñaanal njabootuk lislaam gi fu ñu fi mën di nekk suñu borom jàmmal leen aar leen sutural leen bañ mën a defal suñu borom li ñu bëgg te defal ko jullit yi fu ñu mën di nekk ci kaw suuf sant suñu borom it ci nawet bi weesu ñaan bii di ñëw it mu gën a teel gën a barkeel kon loolu la Cheikh Mouhamadou Lamine wax ne noonee nga xam ne noonu la ko way juróom mu tedd ba Serigne Saalih daan defee noonu la ko yeesale jaar la ko Serigne Mountakha mi mu jotal ko muy noonu yi mu ko waxee mu bëggit ci defin wi lu mu mën ci gën a sell ak gën a taaru mu gën a baax tax noonu ni ko Serigne bi waxee barab yi nga fépp foo xam ne barab nekk na fa mbooloo ma fa nekk saa bu ñu xëyee di jàng mbooloo mi ànd ak ñoom jàppale leen ca loola la nga xam ne des na ko fa yittewoo ci ay xéewal nga xam ne nit ñi dana yendu ci barab yi kon xéewal yi tax du jar ñuy dellu ci kër ya loolu it barab bu nekk ña fa féete bàyyi ko xel bu baax a baax a baax loolu it noonu noonu yi nga xam ne noonu la ko digalee mbokki jullit yi mbokki taalibe yi noonu la ko sàkkoo it ci mbokki jullit yépp bëgg ñu ànd ca doon bisub toroxlu di bisub jàng alxuraan di bisub ñaan suñu borom mu dolli jàmm ci réew mi yokk kilifay diine yi jàmm yokk njabootu lislaam gépp jàmm kon loolu mi ngi koy digal mbokki taalibe yépp di ko sàkku ci mbokki jullit yépp mu mel ne ni ko sëriñ Mouhamadul Muntaxa waxee ci biir dëkk bi it sàkk nañ ci ay barab yoo xam ne ca lañu ko war a defee da dana tàmbalee ci biir jumaa ju mag ji incha allah suñu suñu xëyee sëriñ sëriñ Basiru moom sëriñ Habibu moom sëriñ Fadilu dana fa nekk ak kilifa yi nga xam ne ñooy ñëw ca foofa ak mboolem koo xam ne jege na ca wet googa ak daara yi jege ci wet googu waaye dinañu ko defee ci mbaarum daaru xudus mi su ko defee ña nga xam ne ñoo koy taxaw muy sëriñ Basiru si la imam ak sëriñ Bolle Mbay ak sëriñ Cheikh Ndiaye Xaalim danañu ko defee it ci fii ci daarul minan ci ñi ko nga xam ne ñoo koy taxaw muy sëriñ Basiru Lo ak sëriñ Abdou Lahad Ñang moom sëriñ mat nañ jullit dinañ ko defee ci surra ci jàkkee sëriñ Abdul Xaadir ka nga xam ne moo koy taxaw mooy sëriñ Fàllu Njaay dinañ ko defee ca Gede ka nga xam ne moo koy taxaw mooy sëriñ Moxtaar Busa mu ndaw dinañ ko defee ci bustaanul aarifina ca barabu sëñ Yaxya sëñ Afiya ka nga xam ne moo koy taxaw mooy sëriñ Yaxya Busa dinañ ko defee ci Touba Sonatel ka nga xam ne moo koy taxaw ca jàkkee sëriñ Mamor Mbàkke sëriñ Mamor moo koy taxaw dinañ ko def ca daarul mannaan ka nga xam ne moo koy taxaw muy sëriñ Mbàkke moom sëriñ Abdourahmane ma nga xam ne mooy kilifa barab ba ak ñi nga xam ne ñoom la àndal muy bàyyi sëriñ Touré ñoom ak daara ya fa nekk dinañ ko defee ci pencum kër ñang ka nga xam ne moo koy taxaw mooy maam sëriñ Dia dinañ ko def ci Touba al asar al asar muy lasar bu sëriñ Ceerno Buso ka koy taxaw mooy sëriñ Talla Seck dinañ ko def ci daarul xadim ka nga xam ne moo koy taxaw mooy sëriñ Fàllu Jumaada ak sëriñ Jili Mbàkke dinañ ko def ca ndaamatu kon waa ndaamatu ñoom dañuy ñëw ci jumaa ju mag ji fekk si sëriñ Basiru moom sëriñ Fadilu ci jumaa ju mag ji danañ ko def ca Ndindi ci kilifteefu sëriñ Abdul Fata ak taxawaayu sëriñ Mbacke Diouf dinañ ko def ci guy mbind ci taxawaayu sëriñ Moustapha Mbacke Ñaxar ak sëriñ Joogu Diop imam dinañ ko defee ci jàkkay sëriñ Modou ji ci xaaxira nga xam ne moo ña nga xam ne ñoo koy taxawu mooy sëriñ Xaadim Ndiaye ak sëriñ Salifu Guèye dinañ ko def ci pencum sëriñ Sohaybu nga xam ne moo koy taxawu muy sëriñ Abdou Samad Silla ak sëriñ Mahmoudan Bousso dinañ ko defee ci jàkkay sëriñ Mahmoudan ca Touba Fora su Baylaat nga xam ne moo ci njiital sëriñ Mbàkke moom sëriñ Mahmoudan koy taxaw di xaadi jaxate dinañ ko def ci Madiana tableau bu gàtt ca daare sëriñ Habibu ja nekk ca foofa sëriñ Hamdi Diop moo koy taxaw dinañ ko defee ci Saam ca kër sëriñ Tuubaa ga nga xam ne moom la waa Afrique de Sud di defar ña koy taxaw mooy sëriñ Samba Ñang ak ñam cay àndal dinañ ko defee ci daarul Minan ci jàkka ja ci 30 ba sëriñ Mor Xawasi moo koy taxaw danañ ko defee ci daaru tansil ca penc ma ca jàkka ja kon Mam Baara Mbacke ak Cheikh Diop ñoo koy taxaw dinañ ko defee ci daaru Naxim ci Ndodi ci jàkkay Serigne Aliou Serigne Cheikhouna Ndiaye moo koy taxaw danañ ko defee ci kër Serigne Ñaan Diop Serigne Moustapha Roqaya moo koy taxaw kon li aju ci biir dëkk bi noonu lañu ko tërale bëgg saa boo xam daara joo xam ne wet gu nekk ak képp kuy jàng su xëyee barab yooyu ñu lim ak fu fu ko ci gën a jege rek mu dem fa ak yeneen barab yi nga xam ne it yëpp mbooloo mi danañ ci maase defe ko fa ku xëy rek ci al altine ji juróom-ñaari fan ci weer wi moo xam ne ndigalal sëriñ bi mooy loolu maase ci jàng alxuraan tuubal suñu borom jéggalu ko ñaan mu def jàmm ci réew mi def jàmm ci mboolem réew yu jullit yi fu fi ay jullit mën a nekk su ko defee soññ mbooloo mi bu baax a baax ci ñu xam ne liggéey bi liggéey bi lislaam la ñëpp lañ koy defal kon bu ñuy jàng di jàng ñi ci des taxawu leen ci xéewal yi nga xam ne dinañ ko soxla ca barab ya ndax insha allahu taala danañ fa nekk ba gannaaw tisbaar kon képp koo xam ne it waajal na ay xéewal mu fexe ba mu teel mën a ñëw fekk fa ña nga xam ne ñooy jàng su ko defee it noonu mu ko sàkkoo ci biir dëkk bi noonu la ko digale mbokki jullit yépp noonu la ko digale mbokki taalibi yépp ci biir réew mi sàkk ko ci mbokki jullit yépp it ñu ànd ak ñoom ci bis boobu muy bisub jàng alxuraan ak tuub ak jéggulu ñu ñaan suñu borom mu yàggal ko fi yàggal fi kilifa yi diine yépp yàggal kilifa yépp ci kanamu njaboot yi yàggal njaboot yi seen gannaaw ñu ànd ci bëggug suñu borom wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu